bismillahi rahmaani rahim bokk na ci liy sabab ak ñàkk xoliti lakk xoliti soble wala laaj ak defeenu di nelaw ak buub guddi ak bàyyi mbuubit ci sam néeg ak buub ci sagar wu bokk ci wëteen ak lekk ba noppi di raxasoo suuf wala ab cox ak raxasu ci ndab la nga doon lekke doonte gannaaw bu ñam wa dañee la itam ak jekki ci daw bunt ak wéeru ci ab kaadar ak jàpp wala sangu ci barab bu am sobe ak ñaw sa mbubb ci sa kaw yaram ak pendal sa kanam ci sa mbubb ak raxasu muy tes ci ndab li ngay lekke ak teg am raxasu fa nga doon lekke ak jatu ak dox aajo te soloo ay sër ak lekk wala nelaw te ame ca ngaayul janaba ak gaaw a génn ci jàkka gannaaw bu ñu jullee ak hadem dem ci jàkk gannaaw bu ñu noddee ak tayel ak yàq ak kongamlu ak jënd njaayum yalwaankat yi ak taaj ndab lu def aw ñam te bañ koo ub ak fay ab lamp wala ab sondeel ci di ko wal ak ñaan yàlla sa wajur wala sa doom ak sànni teeñ wuy dund fi suuf ak ragg sa ndëggul tànk ci sa loxol ak saw ci ndox mu taa ak taxaw di sol tubay ak toog di kaalawu ak lekk sa ñaari baaraam ak jaar ci biir ak jur wala biiru jigéen ak nàmp talu ci juróom ñaari fan ci weer wu ne ak fëgg say bëñ ci say baaraam ak farala foq say baaraam ak di ko ràbbe ci sa bëti woom ak farala foye sab sikkim ak leeweku ci sa bëñ ak def yaramu neen ci naaju jant wala weer ak jublu xibla wala dëddu ko di dox aajo wala saw ci fu dara warul ak tifli ci ab sën wala ab ak dëgmu ak doyadal li rote ci aw ñam ak lek wala naan di bañ wax bismillahi ak doyadal julli ak lek gu bari ak fente ko ak ñàkk sol ak jëkk sol dalu càmmoy ci waw ak lek ci kubéer gu ñu ak sàggane sa kawari yaram yi ñu wat lu ëpp ñeent fukki bés ak bàyyi ci sa néeg walla sa jàkka lëndug jargoñ walla ak tàkk walla nguri ak nelaw li dale ci noddug fajar ba ba jant di fenk ak taxaw di jartu ak móolu aw gelaw ak tere ab taal wala puso wala am ndox walla ak kubéer wala xorom ak nax nit ci lu ñuy natt wala lu ñuy peese ak ñaan nit ñi te loro woo ak jënd ab dund di ko denc ba mu gën a jafe nga di ko jaayaat ak njaaloo ak sangu bésub àllarba wala gaawu ak raxasu te maroo sa loxo ak gegenoo tubéy walla wékk ko ci néeg bi ngay fanaan ak faxas sab lal ci ab sër ak merloo say waajur ak dagg garab gu tooy te doyewoo ko dara rawatina nag ak déem